li ko tàmbalee ci commissaire saar divisionnaire Sarr bu janatu commissaire euh, commencé ci commissaire Cobaan bu ndaamaatu commencé ci commissaire Faye bu guy mbind commencé ko ci commandant corps urbain bu janatu commandant Diop ci commandant jaata bu ndaamaatu ak man mii di commandant Jaxate ba mbir mi taxawee ba léegi wala boog biñ nee Touba gis nañ ci kaa ba léegi noppalu wu ñu bàyyeeku wuñu te duñ ko mës a bàyyi. mënoo wax police de proximité te sukkandiku woo ci chef de quartier wala délégué de quartier wala chef de village so ça c'est inadmissible loolu mënoo ko def mu ngi mel ni nit fekk la sa biir kër jéggi la di wax ak say soxna wala wax ak say doom bàyyi la yow borom kër gi boobaa du am dëgg kon ci yéen la ñuy sukkandiku teewaay bi ngeen wax ak am contact ak yéen man defaguma fi ñaari weer wala ñetti weer moo tax bi ma nee bi ma gisee bi may wëree wër wër ba si ak ma ni mais pourquoi pas ma dajale chef de quartier yi wax ak ñoom rencontrer leen d'abord def prise de contact xamante ak ñoom parce que mënoo def sécurité police de proximité di assurer sécurité te jege population jege woo chef de quartier mënta ne looloo tax kon daje bi na seen xel dal ci présence boobu ak daje boobu na ci seen xel dal dégg naa d'autorité maanaam seen cër seen gëdd ci seen chef de quartier kooku na ci seen xel dal ndax man dama koy faral di wax éléments yi nekk ci terrain bi maa leen fa yebal ku dal seen kaw daloo seen kaw ñoom man sama kaw nga dal kon kay yéen chef de ku dal ku dal ci seen kaw dalul yéen seen kaw ci ñun ñii suñu kaw la dal kooku na ci seen xel dal ñun dinañ ci taxaw suñ kemtalaay kàttan ndax yéen bu ngeen amee jàmm ñun ñu am jàmm mais bu ngeen amul jàmm ñun du ñu am jàmm donc force mooy ñu dooleel leen jox leen seen gëdd jox leen seen cër jox leen seen matuwaay ak seen wàccuwaay nga xam ne au moins ku ngeen mën a waxal ci quartier bi dana xam ni kat kii kat am na cër bii am na cër bi am na cër bi te nag seen xel daal du ñu yem ci réunion bi kese di leen def la tuuba ku ci ne ku ne ca quartier ba nga ne dinañ la woo comme yaa ngi ak sa numéro ñu ne la heure tel dinañ ñëw ziar si la bu ko defee waa quartier bi dinañ gis ni yow mii kat am nga ñu la dooleel am nga ñu nekk sa ginnaaw ndax wat gaal kat day ànd ak yëgo loolu am na ci solo bu ko defee yow loolu dana la dooleel kenn ku la bëgg faagaagal dana xam ne am na ñu nekk sa ginnaaw kooku na ci seen xel dal incha allah dinañ ko def am na sëñ bu wax mbirum identification loolu organisation boo gis wala book taxawaay boo gis ña fa ne dañuy am carte de membre wala book carte de délégué de quartier kooku c'est facile à organiser loolu moom suñu jógee mën nañ xam nan la ñuy defee ak euh, sama maam ji ak yenn kilifa yi ñu xool nañ leen leen ci mën a jàppale ba ngeen ba ba ngeen am confection ay carte yoo xam ne day wane kat kii délégué de quartier guy mbind la wala kii délégué de quartier ndaamaatu la wala délégué de quartier mbóojeen la wala ndóoyeen wala nangam sangam nga xam ni prochainement moom tamit fu ñu koy gisee bu présenté woo dana génne kartam ni man maay délégué de quartier bi parce que yeneen secteurs yi sax da ngay gis dañ fay teg benn benn drapeau dañ fay teg benn drapeau loolu aussi muy lu am solo incha allah dinañ ci taxaw bu weesoo loolu bëgg naa aussi yéen délégué de quartier yi seen buntu kër yi ah <laughs> da ngeen fay def ndox de waaw def leen fa ndox ku ñëw di raxasu parce que yéen a ko war a jiite ah am déet yéen a ko war a jiite yéen a war a joxe la bon exemple man su ma dee yabal ñoom sama kilifa yi sama xarit yi di leen yabal ci tool bi ba pare tëdd di nelaw kon du ma xam waa kër sa ñaŋ tëdd nañ de du xam comme waa suura nelaw duñ nelaw guddi mais parce que su ma leen yabalee day fekk ni man tamit maa ngi ca kanamu oto ba donc nit lu muy woote day fekk moom moo ci moo ciy jiitu kaw ambulance yi ma leen doon wax suñu leen joxee numéro yi numéro yi ñu leen di jox mooy numéro fixe commissaria ak sama numéro personnel boobu mën naa leen ko jox numéro commissariat bi ak sama numéro personnel man numéro commissariat bi c'est le 33 978 85 12 jàpp leen ci xeex bi vingt heures na xale yi dugg ci seen kër ba six heures du matin ku ci am soxla bu urgent am numéro yi ñu leen di jox nga woote ci ñu dem defal la urgence boobu soit hôpital la wala soit évacuation la feneen fu mu mën a dem ñu def ko à défaut aussi euh, ñaax leen waa kër yi ñaax leen seen waa quartier ñuy indi utiliser saabu di utiliser gel bi ñuy raxasoo bi ñuy diwoo noonu ah di utiliser même les masques là te ñu wàññi yenn yenn daje yi ci yenn bërëb yi. feebar bi dafa dafa réel ñun attanuñ ko am na foo xam ne bu fa àggee dana metti donc ñu comme yéen nga xam ne yéenay délégué yéenay relais communautaire yi moo tax ñu dajale leen pour wax leen nii leen lii mooy seen doxin lii mooy seen taxawaay bu ngeen àggee ci quartier yi àggee leen ko waa quartier bi bu ko defee ñëpp dinañ am jàmm te it comme li ko sëñ Bële waxee sëñ Lo c'est dommage quand ndax sëriñ bu sant Lo barewul ci kanamu jaxate waaw ci baa wàllu baatin ku ci mën it ñaanit nga ñaan ca la nga ca man pour yàlla def ci jàmm yàlla def jàmm Sénégal yàlla def jàmm Touba yàlla defal ñu jàmm ñun ndax war a doxi sa soxla mënoo dem ah, war a liggéey waroo liggéey metti na compréhension yooyu dañ koy dawal ñun police dañ koy comprendre di ko dawal chaque guddi dañuy daje lu cas yu ne mais dañ koy muñ comprendre population bi bàyyi leen ñu dem